الحديث تاشع موي سونو جروم نينتيلو حديث تي كورغي عن ابي هريره رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ma taqaddama min sanbihi jëlee nañ ci abi urayrata mu ni jëlee na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ni képp koo nga xam ni taxawee nga ramadaan walla woor nga weeru koor wala taxawee nga taxawee nga koor képp ku taxawal koor daal ak ngëm yàlla ak sarxe ak dox mbokk ak li la ci yàlla tere nga bàyyi ko lim la sant nga nekk ci guddi ak bëccëg rafetal koor gi def ci li la ci war lépp sarxe nawaafi la euh, lim ëmb lépp macha allah nga nekk ci borom bi tabaaraka wa taala nee na jéggal na la say bakkaar yi nga xam ni moom nga jiitaloon kon yal nañu yàlla jéggal suñuy bakkaar yu jëkk ak sunuy bàkkaar yu mujj yow daal su fekkee ni taxawal nga koor gi woor nga ba jant so bàyyi nga xel ni yaa ngi doon jàng alquran sarxe nga ci li nga am yaa ngi doon wax lu rafet ci sa làmmiñ yaa ngi doon dox mbokk yaa xam sa téléphone nga jël di ojo yaa xam da message yaa xam looy def lépp yaa ngi dox mbokk gi wala yaa ngi tëdd sa néeg di nelaw léeg-léeg nga jàng alquran jékki-jékki nelaw yaa xam yaa ngi sàbbaal yàlla yooyu yépp su fekkee ni yaa nga ca taxawee nga koor gi kon daal jëlee nañ ci abi hurayrata mu ne jële na ci yonente alayhi salaatu wasalaam mu ne képp koo nga xam ni yaa ngi ci lii bàyyil xel ni yàlla jéggal na la sa bàkkaar yi nga paase yépp macha allah yal nañ ci yàlla boole ci barke yonent alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ñu bokk yàlla nañ leen góorgóorlu bu baax ci koor gi ba am ci bonus nañ leen ci parafitoo bu baax benn boo def ñu defal la fukk benn farata boo julli jullik farata boo julli ñu defal la ko juróom-ñaar fukk benn sunna boo julli ñu defal la ko kemu farata kon macha allah kon nañ leen ci parafitoo bu baax sàbbal yàlla suba ak ngoon di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nañ leen di bari lu ñuy julli ci alayhi salaatu wasalaam nañ leen di bari lu julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jàng di jàng suuratu yaasin suuratu yaasin képp ko nga xam ni yaa ngi koy jàng incha allahu taala keroog yowmal qiyaam mooy sol robbu awoka at euh, euh, taxawale ca kanamu borom bi tabaraka wa taala kon suuratu yaasin foor képp koo nga xam ni jàng nga benn sóoratu yaasin wala fukki sóoratu yaasin day nekkee benn kaamil wala bokk ñu ni benn yaasin day nekk fukki kaamil macha allah loolu am na solo de kon nañ leen di jàng sóoratu yaasin sóoratu yaasin nag tey jóguñu woon ci wax ci njariñam waaye bu ñu ñëwee wax ci njariñam képp ku ko man dee ko jàng ndax surtout yaasin ku koy jàng da nga am gudd fan da nga am wér da nga am teraangay adduna da nga am teraangay alaxira te nag da nga am njéggal ca kanamu borom bi tabaraka wa taala am naa beneen yoon inchaa allahu taala daañu leen dikkal ci njariñal suratu yaasin seen bokk seen xarit imam Youssouf Niang moo nekkoon ci waxukaay bi in uridu il islaaha mastataxtum wa ma tawfiqi ila billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh